Toujours dans votre acte du jour du mardi 19 septembre, dañuy ñëw ci bi nga xamante ni kii di président de la république Macky Sall choisir na ce 9 septembre candidat Benno Bokk Yaakaar muy Amadou Ba dañuy gis kii nga xamante ni mooy Aly Ngouille Ndiaye ci saa dafa daal di démissionné ci gouvernement bi maanaam andul ci choix bi nga xamante ni Macky Sall def na ko bëggul topp ci ginnaaw kii nga xamante ni mooy Amadou Ba waaye boobu ba tey je crois que kii di président de la république Macky Sall nanguwul démission boobu jëlu ko considéré ko kon donc mën nañ jàpp ni que ba tey ji Aly Ngouille Ndiaye démission boobu kenn accepté ko donte wax na ko médiatiser ko bind na ko tek ko mais kiko ko par décret def ko ministre de l'agriculture ba tay ji nangowul démission bobu xeyna nak ki di président de la République dafa bëgg négocier négocier wat njabootam comme nim ko def ak Ablaye Daouda Diallo je crois que ci lool la nek kii di Mame Diaw bi déclarer candidature sax gis nañu ko. am na benn rencontre boo xamante ne am na ko ak président de la république toog nañu waxtaan lan la ñu waxtaan xëy na fii ak ay bés dinañ ci teg suñu bët mais nañu jàpp ne daal kii di Aly Ngouille Ndiaye ba jamono jii ñuy wax ak yéen président la république nanguwul démission muy actualité boo xamante ni gën na fës tey ci journée bi toujours dañuy dem fële ca Touba. ginnaw bi nga xamanteni ni am nay pratiques yoo xamante dañ ko fay tere yu bëre yo xamanteni ni kenn du ko nangu c'est contre des pratiques religieuses de cité de ville sainte bobu di che dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ki di Serigne muntakha basirou mbake togal ko fa gis nañu bay Fall yi def liggéey bu mucc ayib amna saisie yo xamanteni def nañ ko muy saisie yu bëre bëre yenn ci ay xeetu yëre la ay xeetu cholin yo xamanteni dañ koy tere fofu ci Touba muy ay cholin yo xamanteni cholin yu ñak kess la ñen ñi jàpp nañ fa ay cigarette xam nañu foofu ca Touba kenn du fa tok rawatina ay sangara yo xamante xamante ne yu bare fekk nañ ko fa ak ay bracelet yi nga xamante ne ñi ko takkoon mooy waa Pastef yooyu nga xamante ne existé tul yooyu yëpp dañ ko doon tere ci dëkk ba ñii di Baay Faay yi amal nañ fa liggéey bu mucc ayib ba nga xamante ni jàpp nañ fa lu takkoo takku jëm ci wàllu lii nga xamante ni mooy li nga xamante ni foofu lañ ko fekk ca Touba muy ay yére yoo xamante ni c'est indécente ay perruque ay greffage ay cigarette ak ay sàngara donc je crois que ku respecte sa bopp nga ne murit nga taalibe Cheikh Ahmadou Bamba nga sooy waat nga ne Serigne Touba laa gëm mu jaral la lu nekk su ñu demee ba dëkkam boobu ñu tuddee ko la ville sainte de Touba Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké toogal ko fa je crois que lépp loo xamante ni Serigne Touba da koy tere waruñu ko dugal foofu mais gis nañu Baye Fall yi daal amal ci liggéey bu mucc ayib ba nga xamante ni lépp loo xamante ni Serigne Touba da koy tere Serigne Mountakha bi ko fa toogal di ko tere saisir nañ ko foofa ca Touba. Thank you. Yeah.